mbokki salaamaaleykum rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru ngoon si nag ponk bi ci njëkk mooy wàllu làmb comme ni ngeen ko gisee sànq kii di Sa moom moo daan Siteu ci combat bu GFM Entertainment ak Luc Nicolaï ko doon amal fële ca stade Demba Diop Pape Fara ñi ngi yaa ci ligne bi yow seetaan nga combat bi lu luñ ci mën a jàpp. Euh, liñ ci mën a jàpp Chérif daal làmb ji niñ ko yaakaare woon noonu la demoon euh, noonu la demee maanaam làmb ju gaaw te neex ni euh, gis nañ nag Sa lii di adversaire am maanaam daal ci wàllu dóor yi ñaari song la doon njëkk nañu euh, songante euh, Sa Thiès koy dóor dóor boobu nag dal na ci la Siteu génn saaku yi daal di dellu siwaat bi ñaatee Sa li nu mel la indiwaat boobu stratégie am kuy bëri yu dóor ko mu daal di koy dal euh, Siteu daal di jël tànk bi jëm ko tegal seize jëm ko daal di tuur waaye mënul nekk doole nag li ñuy wax doxul jàmm ci la ko Sa Thiès daal di jàpp dóor ko mbot nag bopp bi daal di jiitu kon lamb joo xam ne daanaka mutul deux minutes Sa Thiès nag moom moo gàddu ndam fii ci Diop nga xam ne nag Siteu tey lim ci mobilisé wax dëgg yàlla kenn gisu ko ci spectacle bu am solo GFM entertainment ak Luc Nicolas kon Sa moo gàddu ndam li ci kaw Siteu. gis nañ ko moom mu ànd ak émotion moom ki daan di Sa di jooy lu ko waral. Euh, démb nag danoo amoon accident bu métti gis nga Sa boo xoolee tuñ bi sax dafa xaw a mel lu dagg te ci for nañ ci wéyu ñett ñoo xam ne danoo nekkoon ci oto bi ñu ngi ci duggante dund ak dee ci accident boobu looloo waral nag euh, ñoom ñu daal di jooy. ndax nag danoo nëbb accident boobu ñëw bëre laawa ko tey kon tey moom li mu indi woon bëreel pour bëree ko Sa Thiès dafa bëri woon boo ko xoolee rek bi mu dem bàkku ak wala muy étiré wu da xam ne Sa mi am na lu nekk ci moom ba ñu bëri jàppoon ne jekkul ndeke am na lu mu dem denc tey sax ñun biñ ko dem topp dem nañ kër papaam kër Massar ndax mujj na jël lamb ji au sérieux fekk ñu ko fa mais defoon nañ fa dispositif ñu dem kër Balla Gaye fekk ñu ko fa dem kër yaayam fekk ñu ko fa ñu ne ñu côté Tivaouane Peulh côté yooyu lay jógee tey bi mu ñëwee digg géew gi tekk gi mu dem wane wane na beneen safara waaye nag accident boobu daal ñu wax moom leen dajal démb lu moo indi émission ba moom Balla Gaye ñu daal di jooy ci li nga xam ne moo nekk plateau bi. laaj bu mujj bi nag mooy Siteu mi daanu gis nañ comme ni nga ko waxee àndoon naa confiance ci waajtaay lii ak tamit bi mu bàkk ak yu ni mel euh, déception bi kon war na am solo ci wàllam. waaw déception bi peut-être euh, parce que Siteu après aw na nii di daal di dem wax ak journaliste yi euh, xam nga saafoon teg ñoom daal di génn dem daanaka yenn wu ko yenn bu ëpp ba bu métti mais tamit moom xam naa peut-être su réalisé dina xam ne ne euh, combat bi nekkoon lu métti parce que boo gisoon tamit ci wàllu taay malgré Siteu indi na doole lool mais Sa Thiès tamit amoon na doole bu am solo am na sax ci observateur yi naan Sa mu jël Siteu ci heure bi moom moo gën ndax Siteu mbër la boo xam ne day màgg di am doole te dafa populaire xanaa revanche lay wutiwaat mais boo ko bàyyi woon combat bi day gën a indiwaat coow yaakaar naa ne Siteu bi ñu gis affaire bi affecté wu ko noonu de trop parce que mu ngi romb euh, saafonteeg journaliste yi wax gaa yi interrogé ko mu daal di ànd ak ay waa kaam ñibbi mais dispositif sécuritaire bu am solo am na ci biti ak ci biir yaakaar naa bi ñu paree dañoo évacuer ñëpp ñu génn Chérif Dia. jërëjëf. jërëjëf Pape Faral ñi ngi ñu ngi lay sant di la gërëm dinañ ko yaatal ci xibaaru nasaraan yi ak laya ba léegi ci wàllu football la coupe du Sénégal jamono ji na Casa Sport ak ñaari tali ña ngi fay jongante dinañ ci dellusiwaat ñu wax ci wàllu politique kii di ki fi nekkoon premier ministre di Abdoul mbay moom nag wax na ci rek euh, contrôle judiciaire bi que juge bi doyen des juges daal di tekk démb moom mu ñaaw lu ko jàpp ni complot d'état la dañ koo bëgg a mu samp ndënam ci élection présidentielle ñu dëgmal bu fekkente nag wàllu njuñ jaaj di faux ak usage de faux yéen koy tuumaal nee na loolu amul ndax soxna Sim Taggoog moom nee na soxna soosu ànd na ci ñu def des biens maanaam taqale seen alal dañuy déglu Abdoul mbay mi jiite parti bi di acte ci micro Mame Birame Diouf Mar yoon te bu nekk ci suñu code pénal article 365 yoon dafa ne diggante jabar ak jëkkër diggante jëkkër ak jabar pénal xaju ci ci wàllum lekk sa xaalisu jabar wala lekk sa xaalisu jëkkër génnee nag article boo xam ne c' est l' article 137 du code pénal bu fekkoon ne jàppoon nañu 365 bii ma leen di wax kon doyen des juges du ci xarit dafay daal di war a dem ca tribunal départemental de Dakar waaye lii ci bëgg ma inculpé ma jël sama passeport euh, naan na nga pointé et cetera et cetera loolu rek moo leen ko mënoon a moom moo leen ko mënoon a may ba noppi nag 137 bi ñuy wax am loo xam ne mi ngi ca mooy buñ la ci toppee ba yàgg ba jot la ci boo jógee ne da ngay bëgg a nekk candidat doo ko mën looloo tax nag may wax mais ñu ngi ci biir complot ñu war a ci biir parti bi bàyyi ñu ba léegi jamono ji ñuy waxee na coordination départementale bu parti socialiste ña nga amal meeting fële ca centenaire Gibraltar ca Médina kii amal boobee meeting nag mooy meeru diwaan ba di Bamba Fall ànd ci ak Khalifa Sall Aïssata Tall Sall ak tamit ñoom Barthélémy Dias loolu it dien ci delsi ak di sa Preira wante nag kii di Serigne Mbaye Thiam moom responsable parti socialiste moom àdduna ci boobee meeting jàpp ni daal bu fekkente ni secrétariat exécutif bi doon am démb ci tey ci suba bi biñ koy amal war ñu amalaat beneen xew-xew mu mel ni kon moom ne rafetlu wut meeting bi nga xamante ni beneen pàcc ci waa parti socialiste yi ñu ngi koy amal ñu déglu Serigne Mbaye ci micro Tidiane Dione image yi Modou Diop. daf ne danañu convoquer bureau politique pour wax leen ñu prononcé wu suñu taxawaay ci élection législative yi bi ñu koy def jamono boobu yëguñu benn activité parti bi na leneen li ma ci yokk tamit mooy li nga xam ne moom la ñu tàmm gis ci parti bi même su fekkee ne yenn saa yi am na ay instance muy xale yi muy jigéen ñi muy benn coordination walla leneen. boo xam ne mii jàpp na dara ne dana ko def su fekkee ne dafay tombe ak biro politique wala day tombe ak secrétaire exécutif wala comité centrale wala muy tombe ak tournée secrétaire général wala leneen li ñu tàmm gis daal en tout cas mooy ñooñu dàq seen bos pour privilégier activité bi nga xam ne mooy activité nationale boo xam ne bii ñëpp ci Sénégal ñoo fi jóge fi mu nekk nii tey ci salle bi ñu jógee Kédougou sax ñu ngi fi di toogal partie bi loolu ñu tàmm gis du duñu parti bi ak kilifa yi fi toog ci biir réunion bi passé nañu di def concurrence ak kenn parce que xam naa ne certainement am na ñuy bokk ci beneen activité bi ci ñu ngi ci réunion bi parce que bii la matin bii la soir loolu koy barul bari jarul wax ju bari nit ñi mën nañoo pare kay ku ci nekk dem sa kër sangu ba mu neex la nga dem fu la neex. ñooñu muy wax nag kenn ci ñoom ji Khalifa Sall bokkoon na ci réunion secrétariat exécutif bu parti socialist comme ni leen ko waxee maison du parti la doon amee tey ci suba ca Colobane ca ndaje ma nag wax nañ fa rek tolluwaayu parti bi ak tamit seen yéene ci yi jongante di ñëw ci wàllu élection wante dara leeru ci ndax ñoom kese dem wala dina ànd ci benn bokk yaakaar seen xelit dem na ci seen naataango boobu di Aïda Sow Diawara ñu agressé ko démb fële ca Afrique du Sud ba léegi dañuy des ak Cheikh Tidiane Dione image yi Modou Diop juróom-ñeent fukk responsable yu bokk ci téeméer ak fanweeri coordination yu parti bii di parti socialiste si ñoom ñëwoon nañu daal di fekkee réunion bu secrétariat exécutif doon amal niki tey si si suba bi ñu yéenee nag ñii di socialiste yi daanaka xii ni xaana moom la ñu amal ci élection yi ñu dëgmal la xëy na bureau politique day décider na day ànd ak Benno Bokk Yaakaar ci législative yi hmm. waaye kat dañ leen wax ne réunion bi pour mu engager nit il faut que nit ki balaa muy ñëw mu réunir ay instance am moo tax tënkuwuñu ci loolu li nga xam ne point de vue boobu moo fi jóge tënkuwuñu ci loolu ci li ñu tënku ci réunion bi mooy dañuy delloo kàdd gi téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti coordination yi ñu xam ne coordination bu nekk ñaar téeméeri nit moom la ñuy wax CA maanaam mooy parlement wu coordination bi ñaar téeméeri nit yooyu soo ko xaymaa ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti coordination day nekk donc ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-benni téeméeri nit yoo xam ne yi kon ci parti socialiste danañu wax seen kàddu ci biir ndaje mi am na yenn ci sujet yoo xam ne kenn du ko waxtaanee bokk na ci crise bi nga xam ne parti socialiste jamono ji mu ngi koy dund socialiste yi sax ñoom ñu ngi wone seen solidarité bi nga xam ne jot nañ ko amal jëmale ko ci seen camarade bi di Aïda Sow Diawara mi nga xam ne dañ ko agressé fële ci Afrique du Sud la. ñun ñëpp tamit fii ci daje bi ñaanal suñu camarade Aïda Sow Diawara. nga xam ne dafa am accident bu ko dal fële Afrique du Sud ñu naqarlu ko ñaanal ko di wan ne ñu ngi ci ginnaawam di rafetlu aussi taxawaay bi nga xam ne bi mu ko yëgee secrétaire général parti socialiste Ousmane Tanor Dieng moom la ci taxaw. Ousmane Tanor Dieng ak Khalifa Ababacar Sall ñëwoon teewe ci euh, juróom-benneelu session thématique bi nga xam ne parti socialiste ñu ngi koy amal ci jamono joo xam ne mun nañ ne parti bi ñoom dañoo féewaloo. Kolobaan yeewoo ba neex ginnaaw bi ñu ñaar ci seeni doom di Cheikh Diop ak Cheikh Sidati Mané ñoom nag 2012 ba léegi ñi ngi ci kaso bi dañ leen tumaloon ne ñoom ñoo faat policier bi di euh, Fodé Ndiaye want nag démb cour d'appel moom moo jël dogal daal di leen di bàyyi acquitté leen ndax daal nee nan dara leeru leen ni ñoom ñoo def googee ñaawteef jamono ji nag lii seen mébét ñoom waa Kolobaan rawatina ndaw ñoom mooy ñu daal di dàmp yooye gone ginnaaw bi leen xañee seen liberté ak tamit seen ak ñu ànd ci ak Ibou Diouf image yi Mohamed Dieng ci seen xeex bu ñu sumboon fi la lépp tàmbalee Cheikh Diop ak Cheikh Sidati Mané ñu tegoon leen loxo ci manifestation yi juróon faatub policier bi di Fodé Ndiaye ñu ngi ci atum 2012 gannaaw ñeenti at seen génnab kaso sabab mbégte fii ci Colobane. waaw xibaar bi moom ñun biñ ko déggee dañ ko dégg ak mbégte ak dal mais aussi déggee xibaar bi ak euh, nu ma koy mën a waxee mooy ak euh, satisfaction bu mat sëkk daal. ndaxte lu ñu xaar ñeenti at yàlla def tey mu am mooy que ne nit ñi gëmoon nañ ne xale yi defuñu. taxaw Colobane seen taxawaay rafet na ci. rafet na ci lool lool loolu jeune Colobane ak seen yaay ndax seen yaay laay gërëm ak seen papa ndaxte ku ci say doom bëggoon dem nga ne ko yée bul dem ndax ñee ñu nga ne jàppalante génn guñu bul dem mais mag ñeeg ndaw ñi màgget ñi mënul dox sax dañuy dem démb boo demoon fi a ngay wax te ba affaire bi amee ñeenti at yëpp fu ñu tourné ñu ngi ñëw. xeex bu yàgg te laajoon itam farlu njabootu Cheikh Diop ak bu Cheikh Sida Timaane farlu woon trop andi ci ak askanu Colobane. neen ñu àndal yàlla suñu borom daal nii yàlla mu fi amati te nag di gërëm tamit nag waa Colobane ñi nag am dafa am ñu fi nekk ñoo xam tamit ñooy cëgal guy bi gërëm naa ñëpp ndax boo gërëmee Colobane yëpp ilimaan yi tam tamit ñu ngi ci biir. bu dul woon am nañ message boo xam ne dina mën a porter ba nit ñi mën ko dégg duñ fa yegg tey ña àndoon tamit dañoo bokkoon ànd après ku nekk gëm sa moroom yaakaar naa loolu li gën a tax affaire bi am doole la mhm. ndax su ñu mënewul woon plaidoyer ba ñeneen ñi fekk ñu si xëy na tey duñ yegg fii. gannaaw gënëb kaso ñaari ndaw kolobaan yi seen xarit yi fas yéene sumb beneen xeex. nit doo ko toog ñeenti at nga tëj ko ba pare bàyyi ko mu ñibbi noonu ci neen te alors que am na lu bëri loo xam ne xañ nga ko xañ nga ko njabootam xañ nga ko liggéeyam xañ nga ko liberté je pense que tey dafa jox ñu toog xoolaat. ban indemnisation lañuy defaral xale yi ndax loolu mooy sunu combat nag tey li fi jot nag mooy Sénégal bu dee ñu fàtte la. Cheikh Sidati ak Cheikh Diop ñoo ngi leen di xaarandi ci Colobane ci altine ji laata ñuy teew seen njaboot ak seeni xarit du dund mbégte te delloo njugal askan wi yëpp. mbokk yi ngeen jëf fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru ngoon si ñu ngi leen sant leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média bàyyi leen ak programme bu muy ci kanam 20 heures la Leya Ndiaye dina fi teew yaatal ko ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf.